dalli nag jàmm ci bët set point com càcc gu moo am ca l'hôpital militaire ba Wakaam IASO benn sergent moo ne doññet ay kër artificiel maanaam xol roño ak yeneen jumtukaay ya docteur yi nar a jëfandikoo ngir faj doomu aadama yi feebar mbir mi doon lu yéeme ci l'armée sénégalaise bi ndax sergent ID ci biir l'hôpital bi la doon liggéeyee waa section de recherche bu Colobane teg nañ ko loxo bu ñu sukkandikoo ci l'observateur mi ko fësal ci xëtam bu njëkk waa ji bi ko sàndarme laajee weddiw ko benn yoon te sax cacc gi doorul tey ndax atu yàllaa ngi ni bi ko tàmbalee léegi te kenn mësu koo naanee ndox loolu yóbbee woon l'hôpital bi mu am rupture de médicament ak i roñoo càcc gu mu jóge sax jaay na ko lu toll ci fukki million ak ñaar boo ko xaymaa ci suñu koppar bu weesoo li mu nar a tëdd kaso ministre des forces armées joxe na ndogal ne ngir ñu dàq ko ci liggéeyam Pape Sagna Mbaye bu ko neexee nelaw ba yandoor ancien maire Pikine bi ci masseuse ba ca VDN ba daal koy yóbbu ci otoom bu ñu sukkandikoo ci source Sidi Ahmed Mbaye jarbaatu directeur généralu ANAMO la Maodo Malick mbay moom nag gannaaw ba mu xamlee ne chauffeur aji Sarr bi doomu magam la nee na yoonam newul ci mbir mi Sidi Ahmed mbay magu boppam la ndax am na ñaar fukki at ak juróom-ñeent ay dugg-duggam ak yi génn génnam moom la concerné loolu du samay kàddu responsable politique ba ca Thiès moo ko wax affaire Sweet Beauté baa ngay bëgg mi nag massage ki gannaaw ñenn ci ay doomi réew mi ñu dut baaraamu tuuma ne seen loxo setu si tey nag tuuru maître Dior Diagne la avocat bi nag dañ koo jiiñ ne am na wàll wu rëy bu mu dox ci mbir mi ndax moo jàppale bu baax a baax kii di Adji Sarr dem sax ba bindal ko plainte bi mu déposé gendarmerie bu Colobane guddi googu ci ay une matin ba noppi daal di koy nëbb këram ngir ñu bañ koo xoxotal waaye maître Dior Diagne mile mer na de yii mer na ba tax mu bind bataaxal di wax ni li ñuy wax ci moom yépp dara du ci dëgg du moom te du kenn ci waa cabinet plainte jëmale ko ci ñu jëf lii siiwal ko ci réseaux sociaux yi ba ñëpp jot ci